indi ay moom itam nag jëm ci ni mu fas yéenee doxalee budget bu atum 2024 le soleil yëglekaay daal di xamle ci xëtam bu njëkk ne ay réalisation yoo xam ne rek programme la bu ca taxawal jëm ci wàllu équité sociale ak territoriale jëwriñ ji di xamle ci biir yëglekaay bi ne daañu fexe nag ba gën a renforcer secteur yi nga xam ne rek moom mooy gën a suqali wàllu koom gi ngir lu jëm ci wàllu émergence waaye tamit gën a dimbali njaboot gi rawatina ñii di communauté bi jamono joojee nag njiit li di xamle ni daal liggéey bi nag des na lu bëri loo xam ne rek mi ngi ci suñu kanam li ne ci suñu suñu kanam kay jamono ji nag ngi ci Sud Quotidien miy dellu siwaat nag ci recours yu bëri nga xam ne rek déposé nañu ko ca conseil constitutionnel yéenekaay bi ne xeex bi jeexagul ba noppi nag di laaj ndax recours yu bëri yi du impacté nag doxalin gi ñeel élection yu 25 février combat perdu d'avance loolee nag la ko yéenekaay bi di enquête dippee motif yi nga xam ne rek moom la ñuy ñaxtu atum ren ji nag moom la ñu gisoon ci atum 2019 ñoom ñii ñëpp nag kenn bokk ci woon ci jongante xeex bi doyal nañu ci sëkk yéenekaay bi di Le Quotidien xëtam bu njëkk jëm ci recours yi nga xam ne rek boobaak léegi ña ngi koy déposé ca conseil constitutionnel yéenekaay bi ne Amadou Ba li mu bëgg mooy bloqué kii di Diomaye Faye ak Cheikh Tidiane Dièye rëkkale yi woote jëm ci juróom-ñaari sages yi prolongation la ko mën a jàppee jëm ci wàllu parrainage yi Walf Quotidien moo xëy daal di koy fësal ginnaaw recours yi nga xam ne déposé nañu ko ca conseil constitutionnel yéenekaay bi ne Bougane Gueye Dany Mimi Touré ak ñi mu àndal nag ña ngay bind ab lettre jébbal ko mag Macky Sall fekk Karim sa Wade di xamle ñàkk gi mu ñàkk daanaka lu jëm ci nationalité française am l'observateur def ab taxaw seetlu jëm ci recours yi dul jeex yi ñu déposé nag ngir lu soxal présidentiel yu atum 2024 lu jëmit ci réclamation yi ca conseil constitutionnel bataaxal boo xam ne rek ñeen fukki candidat ak juróomi ñu rëkkale jébbal nañu ko Macky Sall jëm ci limite yi nga xam ne moo ñeel pouvoir bu président lu jëmit ci wàllu nationalité Karim Wade Amadou baam yi nga xam ne rek ma ngay amal ay réclamation ngir nag lu jëm ci élimination ay candidat loolee lépp nag delluwaat na ci ñaxtu yaa ngay woy ak i ca kaw taabal yu juróom-ñaari sages yi yëglekaay bi di Les Échos di xam le ni Amadou Ba déposé na ay réclamation jëmale ko ci Bassirou Diomaye Faye ak Cheikh Tidiane Dièye ca wet ga Karim Wade di leeral ne mësuta voté ca réewum France docteur Assane Ka ma ngay jox ay leçon collectifu candidat yi nga xam ne nag dañu leen a recalé libération moom xëy dellu si tey jii ci mbirum oustaz Assane Seck yéenekaay bi di xam ne ne daal ma ngay woy di des ci kaso bi ginnaaw rek bi muy sàkku ngir ñu may ko liberté provisoire loolee nag démb la ko daal di di neenal dossier boobee nag ndar képp nañu ko ba jébbal ko parquet bi ngir mu wëy nag di des ci kaso bi moom oustaz Assane Seck procureur bi nag def na appel jëm ci li nga xam ne rek moo soxal contrôle judiciaire bu chroniqueur bi di Pape Sané ma ngay sàkku nag ñu amal ab mandat de dépôt jëm ci coow li nag yéenekaay bi ne mbir yi daañu ko yóbbu alxames ji nag ca chambre d'accusation ñu àddu jëmale ci wàllu tàggat yaram réew mi sport di xam ne jàppale gi mu taxaw ngir jàppale ko supporter yu Sénégal ministère bi ñu dénk wàllu tàggat yaram leeral jëm ci cinquante millions yi nga xam ne rek moom la ñu dugaloon ci wàllu gestion bi lu soxal ba tey kaan boobee ñuy amalee ci Côte d'Ivoire ñaareelu jongante bi nga xam ne rek gaynde yi nag ñu ngi koy waajal jamono ji mu war a dox ci seen diggante ak waa Cameroun aljuma ji lay doon sunu làmb nag coach Ali la jël tey jii ma ngay joxe ay dëggam mootloo nag exemple la war a doon ci Eumeu Sène Balla gay ak Gris Bordeaux loolee nag léegi la kaay bi di sunu lamb daal di fësal mbokk yi li ci gënoon a fës jàmm jàmm. Société nationale